Euh, ma am mbégte lool dalal la tey ci waxtaan wu ni mel euh, fàttali ni yow nekkoon nga avocat wu Khalifa Sall ci euh, mbirum caisse d'avance bi waaye dossier bi mujj nga tudd ci itam wàllu politique mooy bu Assane Diouf bi nga xam ni daanaka baax ki démb lañu ko placé sous mandat de dépôt metre ginnaaw bi ma la nuyoo maa ngi lay dalal jàmm ci démb ak tey. Ah, maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen sant hmm. ak. seen service ak les auditeurs et tout le monde. Mhm. jërëjëf maître am nañu mbégte mu rëy dalal la ci plateau wu Demb ak Tay alors ni ma ko waxee tey dañuy waxtaanee politique ak justice euh, ma jël exemple dossier xalifa Sall waaye dañuy commencer ci bi gën a bees muy dossier Assane Diouf bi nga xam ni euh, ci àjjuma ji lañu ko placer su mandat de dépôt nga jàpp ne nanu ko doxalee du noona gis ci itam wàllu politique ba tax sax nga ni euh, sa client boobu détenu politique la ban jàngat nga def ci ci procédure Assane Diouf ak ni yëf yi demee ba nga yegg si ci conclusion wu détenu politique la ak xëy na dañoo manipuler justice beeg texte yi. Euh, jàngat bi ma ci euh, def moom moo di daanaka li ma man jàpp ci justice sénégalaise maa ngi ciy yëngu depuis lu mot euh, fanweeri at ak juróom-ñaar justice sénégalaise dafa di justice boo xam ne. dafa mës a tënku ci politique depuis temps Senghor fekkee naa ko ndax jamono yooyu ñun ñoo doon défendre ab Ablaye Wade ak jamono Abdou Diouf jamono même Ablaye Wade avec les affaires ay ay euh, kii euh, ñu mel ni ñoom Idrissa Seck ba fi ñu toll wante fii ñu toll dafa gën a bonati li tax da fekkoon ne que jamono yële weesu Euh, dañoo amoon ay euh, magistrat yoo xam ne ak nu munti mel seen jàng waroon na amoon nañu fit xamoon nañu aussi doole bu leen yoon dox jox xamoon nañu seen place ci biir réew mi ak seen doole te it ak lu ñu leen mënoon ti wax toujours ñu ngi doon bàyyi xel ne que réew mi day dox et que ëllëg ñoom duñ fi nekk seeni sët dinañ fi nekk ba nga xam ne ña doon jalgati euh, di topp li neex buur dañ leen doon compter ñu mu amoon ci ñu jàmbaare donc dañoo gis ne que euh, justice au lier que mu doon loo xam ne dafay doon balance ci réew nga xam ne ñëpp dañ ci war a tegu dafa am ñoo xam ne ñoo koy jumtuwaay mu doon seen gànnaay doon seen xeexukaay ñu koy jël di ko teg ci askan di utiliser lu mel ni ay police muy jur muy jur ay situation yoo xam ne dina dem ba war a mën a mujj ci ay saafaan yoo xam ne que yàlla rek moo ci teg loxo mu di la marché des policiers yooyu yëpp dérive yi moom moo ko indi dérive moom moo di euh, ñàkk maanaam topp yoon ñàkk jox aussi ñi nga xam ne que ñoom ñoo seq réew ku ci ne sab cër dañoo jël lépp mu nekk ci cëru politique. Hmm. magistrat yi dem ba nga xam ne que am na ñoo xam ne bu ñu jegee seen retraite dañuy mel ni ñu tiit ay privilège la ñuy wut moom moo di dañuy fexe bu bu fekkee ne que seen wàccoon nañu liggéey ñu def leen ay ambassadeur wala ñu jël leen euh, làq leen ay conseil constitutionnel maanaam daal jox leen wala peut-être même bu ñu nekk ay affaires yu leen di jox ay marge loolu moom moo tardé suñu réew donc dangay gis ay doomu aadama yoo xam ne seen wàll rek la ñu laaj ci réew mi ku mel ni Khalifa Sall wàllam rek la laajoon wante ba mu laajee wàllam ñu ne ko ah sa wàll de xanaa mënoo ñëw ñu boole kook suñu wàll mu ne man bokkoowuma droit am la ñu jaay ko doole utiliser maanaam seen loxo bi nga xam ne tey jii mooy loxo bu gën a fës ñëpp di ko naqarloo muy police ñu jaay ko doole xañ koy avocat jagar jagare ko yóbbu ko ñu tëj ko jalgati ay droit bañ ko ba ñu génn bitim réew moom moo ne la ngeen di def rafitoo rafetul ci réew mi nga xam ne dafa nekk état de droit la ci réew bi nga xam ne dañu nekk démocratie la droit bi gën a néew mënu leen ko sax reconnaître ab kili koo xam ne kilifa la ci am réew te ëllëg war na mën a jot réew war na mun a diriger réew loolu rafetul hmm. Assane kenn mënul wax ne que li muy wax war na koo wax ni muy def war na ko defe ñaaw na te du yoon te it ñëpp koy naqarlu man mi doon avocat am doon ki jiitu te it Assane daf ma jox benn kàddu parce que dama ne ko Assane mun waaw ma ne ko man du sama cër may defendre yenn yi te it lii ma kàddu yi ma dégg naqari na ma parce que ak lu mu munti mel ci kii mu jublu. Mhm. kooku sama président la. dañ koo fal ak lu ñu munti wax loolu la ñuy jàpp ci institution ne fal nañ ko. Mhm. bu ñu nekk tricher naag tricher wu rek def nekk dans tous les cas moom moo fi nekk. moom moo ñuy waxal kon maa ngi koy naqarlu mu ne ma jéggalu naa ndaxte rus naa la ci rus naa la ci sama xol moo feesoon du ñu dugg ci détail yooyu parce que man la tuddati ay réaction mhm. humaine la ku ci ne ci sa nature am na nooy naqarloo boo amee loo xam ne que naqari na la te yooyu yëpp am na ay solution yoo xam ne war nañ ko mën a def lu dul di jël di jaay doole ak di jalgati parce que opinion la opinion toujours ci politique la jëm parce que opinion moom mooy de yow xalaat bi ngay mën a xalaat pour nekk réew mi nii de buñ ko doxalee woon ni wala lii de buñ ko tere woon wala lii de bu fekkee ne que euh, jéemoon nañ ko dinañu jëmale kanam muy sa xalaat xalaat nag ah li gën moom moo de boo koy boo ko yoree nga wax ko ci anam yu gën a rafet yoo xam ne nañ la mën a déglu wante du bañ doon anam yoo xam ne nopp yi duñ ko sax bëgg a déglu dégg léegi nag ba loolu amee président la république am na ci xel te loolu foog nit ñi xam ko muy xel bu mag parce que dafa lànk ne du topp Assane hmm. looloo feeña ah, ci xam-xam président dafa bañ ndax ñëpp xam nañ ne moom la saaga saaga njabootam ñëpp di ko naqarlu mu di rafetul kon bu fekkee ne dañ koo jàpp ci kaw loolu lañ ko war a jàppe su fekkee ne dañ koy teg yoon ñu teg ko yoon awale ko ci yoon bi nga xam ne loolu la méngool wante police comme nam ko tàmmee defee man naa ko wax de daf ko tàmm def hmm. léegi police tàmm na di duma police tàmm na di woote par téléphone doo am doo am benn trace tam mu ne di jëli nit ñi ci waxtu bu ne fajar guddi xaaju guddi bëccëg par force alors que nit am na droit ñu convoqué ko mu ne du dem te bu boobaa mandat de justice lañu la woon moo war a tax ñu dem jëli la par la force léegi ñoom ñooy doole ñooy buur ñoom ñooy buur kon da nga bëgg a wax ne déjà niñ jëli jee Assane du yoon ni ñu jëli jee dañoo war a topp alkaati yi bu dee procureur moo ko yebal war nañu laaj procureur ay compte amul droit moom ñi nga xam ne moom moo di moom moo di diriger activité police judiciaire dégg nga addina yëpp di gis façon bi nga xam ne que police dugg na ci biir kër di dajji ay bunt nit ñi di dégg tel tel tel tel tel tel addina yëpp di ci teg bët ay alkaati di jël ay ay nan ay ay turban ba kenn du leen xàmme mel ni ay berber dégg ak ay terroriste dañu leen war a laaj compte te tey ji assemblée nationale war na laaj compte li xew ci kër assan war na laaj compte li xew ci kër googu nga xam ne que yi du nañ ko ci couvre-feu bi door ay nit gaañ ay màggat donc fii ay pouvoir la équilibre la te li ñuy bàyyi muy raam ñëpp lay dal keroog benn famille la ci yëmbal tey assan la suba yow mii di def émission la mën la ñii nga xam ne tey jii ñoom ñoo ci ñoom ñoo ko mën a dàkkal te ñu noppi dañ leen abal fa ñu toog mhm. siis boobu danañ fa jóg dina leen dal wala mu dal seen jabar wala mu doon dal seen doom wala mu dal seen sët te fekk ñoom bañ ko waree mën a dàkkal defuñu ko mu dal leen te loolu lépp pour lan pour lu neex xëy na buur te nii président Macky Sall a juré ci dossier bi président Ablaye Wade mus na ko agiré boobu it man maa doon avocat journaliste bi kàddu yi mu yëkkati woon it rafetul wante ba ko jàppee ma ne ah nii ñu ko jàppee de détenu politique la te loolu war naa mën a ñàkk ci démocratie président Ablaye Wade maa ngi fàttaliku gone laa woon de mille neuf cent doon la traité euh, période boobu dégg nga j'étais j'étais maa dama doon dem tàmba hmm. audience ma gaare sama oto woo RFI ne Sénégal enregistré na son premier détenu politique fekk président Abdoulaye Wade mu ngi nan la tuddati mu ngi France mu xëy fajar def déclaration kàddu yi mu yëkkati xam ne lan la. Hmm. dafa am des magistrats zélés. Hmm. yoo xam ne dañuy yoo xam ne que pour faire plaisir au prince. Hmm. dañuy engager des actions yoo xam ne war na mën a ñàkk te loolu baaxul ci réew. moom président Wade moo waxoon loolu. moom président wadd moo ko wax. dégg nga. Hmm. bien que am na séparation de l' exécutif et du législatif dafa ne nañ ko libéré. Hmm. nañ ko génnee. il procédure bi jaaruloon sax yoon. jaaruloon yoon mu ngi mel ni procédure am ni colle jaaruloon yoon. dégg parce que président de la république moom la ñu tooñ moom la ñu offensé moom moo war a mun a wax topp leen. Hmm. wala ministre de la justice intervenir joxe ordre procureur munul munul munul am auto autosaisine. procureur de la république dafa am yoo xam ne que mën na saisir boppam am na yoo xam ne mënu ko foog nit ñi xam ne que dooleem am na fu mu yem. mën mënam am am na fu mu yem sañ-sañam am na fu mu yem. fa a kon kon ci kaawu Assane bi procureur ci biir loolu mais am na fu mu yem. waaw kon jii su fekkoon ne que ñëpp xam nañ ne que. Mhm. yu ñaaw yooyu Assane yëkkati moo tax ñu def la ñu def. mais kenn déggul offense au président la république de ci procédure. Mm. kon cela veut dire que président république am na grandeur ak hauteur xam ne que dafa war a bootoo ñëpp te ku bootu da nga boote ñu am xam-xam da nga bootu ñu ñu matadi da nga boote ñoo xam ne que seen xel neexul wala seen xel wayul hmm. da nga matadi ñoo xam ne dañoo xamadi wala dañoo am beneen kii hmm. kon président république hauteur boobu la war a am kon le ministre de la justice joxul instruction procureur de la république parce que le ministre de la justice bu fekkee ne defu ko moom xalaat na ko am na auteur bi wala conseiller le président de la république wala xam na ne que bi yi warul ñuy dem ay audience di ko wax ñuy déggate ay saaga yoo xam ne que mu jublu ci président la république mm. yooyu yëpp ci xel la jub mais ñu tëñëx tëñëx yi quand même disposition boo xam ne que maanaam dugal ko ci yoon boo xam ne que ba tey la ñu doon daw nekk Sénégal am na détenu politique ba tey ñu ngi ci biir dañoo surux ci biir kàddu maanaam infraction biñ ko toppee maanaam infraction politique la dégg nga mhm. Mhm. loolu pour lan pour mën ko yóbbu ci kaso bi te nag xam nga mbir yi lan moo ci réel laaj ma ko. waaw loolu liñ ko topp. Mhm. benn maanaam dafa ñàkk teggin. ak ñàkk yar. ci kanumay alkaati yow ñu dugg sa biir kër. xaaju guddi. dajji dajji waaw jaagar jaagaral gaañ mhm. la ba pare ñu ne yow yaa ñàkk teggin ak da fippu waaw révolte mhm. kan moo ñàkk teggin xam ngeen ne loolu c'est ridicule kon kon li ñu ko toppee offense au chef de l'État ak yooyu amu ci de mhm. bàyyil may parce que foog nit ñu comprendre le ridicule le ridicule mooy loo xam ne maanaam euh, gàcce war naa rey xam nga beneen bi lan la. Mm. moom moo di dañ nekk Assane dafa woote pour nit ñi gànnaayu wàcc ci ci ci biir dëkk bi loolu lañ ko toppee. Mm. provocation à un attroupement bu yëf yi maa ngi ñaan mu bañ a dem audience wante bu demee danañ fa gisaat beneen gàcce ci wàllu xam-xam. Mm. wante. ñu jàpp ne que yooyu yëpp infraction bi nga xam ne que moom moo ko def détenu politique moom moo di bi mujj bi ñu nekk dafa woote pour ñu gànnaayu pour mën a saafaanoo maanaam euh, pour mën a song li nga xam ne que mën na yàqum réew léegi yooyu yëpp yoon de dafa am li ñuy naan peine daf ci def peine alternative moom moo di dafa nekk mun nañu jàpp mais jàpp bi nga xam ne li Assane war a mën a def kaso lu mu bari bari bari bari suul at dañu nekk mën naa ñàkk ñu teg ko alamaanu ñaar fukki junni alamaanu fukki junni de hmm. moo tax lii coow lii lépp voilà le ridicule hmm. li ñu topp Assane yëpp y a des peines alternatives pour agent agent peine alternative vingt cinq à cinquante mille rébellion contre les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions am na peine alternative amende de vingt cinq à cinquante mille provocation à l'attroupement armé am na peine alternative un an de prison maximum ou bien cinquante mille à cent mille francs d'amende lu ko ci lu neex juge moom lay def dégg li ci gën a leneen li nga xam ne ko du yoon est-ce que loolu jar na coow li est-ce que loolu jar na lii ñu def adduna yépp topp ci ñu naan lii de ba tey ndeke am na Sénégal kenn mënu koo kenn mënu koo yaakaar ba paree ñu dem manipuler les lois pour yóbbu ko prison alors que dañu ne ko flagrant délit la moom moo di loo xam dafa ne kott ne jom nit ñi teg ci bët mu fës ñu war koo mën a jël nit ki buñ ko waree dóor ñu bàtti bàttal ko ci saa si mu bañ a yendu ñu jël ne dañuy enquête lan la ñuy enquête lii lu rusulu la. Hmm. on agit en flagrant délit pour un flagrant délit dañ ñoo yëkkati ñu ne flagrant délit la dem leen mu ngi noonu di jalgati jàppee leen ko kon preuve yeeg yëpp da ngeen koo yor kon lan ngay enquêté est-ce que loolu rafet na ba pare ñu bëgg nit ñi nit ñi mën a croire à la justice dégg nga kon boog motif politique bi nga xam ne que moom moo tax ñu jàpp Assane def ko on détenu politique yooyu yëpp dafa wane ne que tey jii la justice ak fu mu nekkoon dafa dafa piir dégg nga. Mhm. Khalifa Sall injustice bi moom la subir doo fan la mujjee. Mhm. bala ñuy yegg ci Khalifa Sall mais parce que parce que am na am na am na yoo xam ne bokk na ko xasan ah. waaw benn bi moom moo di CEDEAO nee na Sénégal la ngeen def di yoon. Mhm. def ngeen lépp lu dul yoon. jalgati ngeen àq ak yelleefu Khalifa Sall. te lii ngeen nar a atte du wër atte Khalifa Sall du mos a wër parce que CEDEAO ne nekk c'est procès inéquitable mm. illaaw dafa nekk ci situation boo xam ne procès inéquitable la moom moo di fii mënatuñu jubbanti mbir mi yàq nañ ko nëbal nañ ko jalgati nañu yoon ba nga xam ne que mënatuñu atte Khalifa Sall atte bu wër te liñ ko xam ne coowle coowli gracé nañ ko yooyu yëpp maanaam du dara mm. la même chose wax nañ ko ci nan la tuddati Assane te lu mel nii la dañu nekk Assane lañ ko jàpp diir bi nga xam ne que ëpp na dayoo hmm. jalgati nañu ay àq ak yelleefam te ñu ngi demaat ci yoon boobu de dafa mel ni que Sénégal dañuy dem di signer rek lu ne ñu dugg mais en fait faale wuñ kenn. duñ ci respecté dara maître mbiru Assane bëggoon naa bala ñuy jàll ci leneen ñu leeral benn mbir ndax sànq yaa ngi ne euh, président portewul plainte ministre de la justice également joxewul instruction ñu buggoon xam ndax ci cas yu ni mel procureur moom amul droit wu saisir maanaam jugal boppam euh, ci coobare boppam dem jàpp nit ki. Euh, xam nga boo fekkee nekk déglu luñu hmm. te bëgguma ñu dégluwaat ko sax. Hmm. parce que kàddu yi moom baaxul ciy nopp. Hmm. déglu ko sax bàkkaar la. du ñoom rek de saaga yi du ñoom rek de. Assane dafa na ma mer na xolam fees na mu ngi jégalu te mu ngi may baalu àq parce que mayoon na ma. Mm. ñaanoon naa ko mu may ma nekk lépp lu ma war a def ci réew mi dinaa ko def sama cër yëpp dinaa ko def wante kàddu ñaaw dootuma ko waxati mm. Assane moom moo ko wax de. te bu génnee dina ci dellu. Mm. te gëm naa ne que rëccu na ko. dégg nga mais am na ñeneen Youssou Ndour mu ngi ci. Mm-hmm. Tumbo mu ngi ci. am na ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne que tudd nañ leen kon boobu même bu fekkee nekk du président de la république ay injure ak yooyu ñu ngi foofu ak ay diffamation wante yooyu yëpp visé wuñ ko xam nga li tax. Mm-hmm. parce que Youssou Ndour porté wul plainte parce que Timbo porté wul plainte. Mm. keneen a keneen porté wul plainte est que léegi procureur day jël euh, maanaam euh, day day day day day. dafay soog autosaisur yi fii bàyyi yee ku ne mu hmm. dem na la kaay porte plainte hmm. pour mën a justifier action parce que mënu ko même bu fekkoon ne ñooñu porté nañ plainte suñu nekk dindi nañu suñu plainte hmm. yaa ngi déglu dindi nañ suñu plainte action publique bi day jeex procureur ay tànkam dañ koy dagg day day dagg mënul autosaisir moom lay wax ne que fii nit ñi dañuy def lu leen neex wante bu fekkee ne que nit jox nañ la cër ak ngay def lu la neex comme police ñuy dem di dajj ay kër mais dañu leen di teg ci yoon ñëpp mën a ragal yoon. Hmm. mais si ñëpp nga ñëpp ñëpp ñeme yoon. Hmm. surtout bu fekkee ne que yaakaar nañ ne que lii war na mën a neex autorité politique yi léegi gel boobu président ab Ablaye Wade waxoon à l'époque. Hmm. ne nañu libere le journaliste ñu libéré ko procédure bi fa yem moi je pense que même gel bi moom moo tax tey jii ñu duggati ci ay procédure ak ay affaires yoo xam ne que ça n'intéresse pas l'État mhm. ça n'intéresse pas le président de la République président de la République am na yeneen yoo xam ne que moom la yitteel te it njabootam la yor njaboot dina am ku tëre bi mhm. nga kon boog li ñu jàpp ne que dañu war a bàyyi justice info wu ci pouvoir politique bi te it ñii yëpp dafa di loo xam ne que ci institution yi la institution yi moom moo di réew mi ni muy doxee dégg nga réew mi ni muy doxee moom moo di que war nañu mun a am juge d'instruction bu ne hey procureur yow lii nga bëgg ma ma jàppee Assane mënu ma koo jàppee parce que Assane mii kat bu demoon tribunal mun nañ ko yemale ci ñaar fukki junni alamaan kon kii duma ko jàpp. Hmm. mais juge bi dafa ko mais loolu dañ dañ ko war a xalaataat alors juge bi non juge bi du jaamu procureur ba pare procureur. ne ko da nga koy topp ci charte yoo xam ne que ay avocat bu bu bés bi si ñëwee di tàllal làmmiñ naan na fi génn su ma bañee yow doo am sañ-sañu def ci def ci sa làmmiñ juge bi topp ko ci vise article cent trente léegi yii yëpp assemblée nationale warul gis nekk ay article cent trente neuf ay article deux cent cinquante cinq dégg nga ak ay ak ak na la comment comment on appelle ça ay article quatre vingt dégg nga du code de procédure pénale ak code pénal que war nañ ko réformer. Hmm. assemblée nationale ay day am toujours ay motifs yoo xam ne dafa war a réformer loi yi xam ne lii du yoon lii du jëmale réew kanam mu ngi ni occasion ay Khalifa Sall. Hmm. occasion ay nan la tuddati ay ay ay ay euh, nan la tuddati euh, Assane Diouf même bu fekk Assane dafa tooñ. Hmm. tey jii kenn waxatul ne Assane tooñ na. li ñuy wax moom moo di ñu ngi tooñ Assane te lii ñuy def Assane ñun ñëpp mën nañu dal. Mhm. kon tey maître ni ni procédure bi tëddee. yow da nga gis ne procureur daa dem ba féete kaw juge d'instruction bi. fi mu ne. Mhm. da koo def jàmm parce que nee na ko bu avocat yi déposé devant liberté provisoire su ma bañee yow amoo sañ-sañu dugal ci sa làmmiñ doo ko xool. Mhm. la procédure est la demande est irrecevable. Si c'est irrécevable, les juges hmm. mais pourquoi ci koo xam ne que mun na yem ci ñaar fukki ci ci ci ñaar fukki alamaan parce que yi xam ko ci ay abus ay ay ay abus la hmm. loo xam ne mën na ñàkk. Hmm. foofu maître foofu loo xam ne. waaw. boo yaakaaree ne que yow da ngay def lu neex buur. Hmm. yaa ngi gaañ buur. d'accord yaa ngi koy indi coow loo xam ne mën na ñàkk. Ah, ñu foofu ñu taxaw fa tuuti ubbi parenthèse xëy na ci indépendance de la justice ba tey mu ñu yóbbu ci justice ak politique ndax procureur ku ko wax sa xel ci exécutif bi lay dem ndax ministre de la justice mooy kilifaam ministre de la justice président mooy kilifaam loolu UMS ak yeneen i euh, nit sax yoo xam ne ñu yëngu ci wàllu yoon yàgg nañu ko kaas ni faaw ñu dagg loolu bu ko defee justice mën a moom boppam tey bu ma la déggee nga wax dafa mel ni kon justice indépendance bi ñuy wax daanaka amu fa ndax tey boo ni procureur moo def jàmm juge d'instruction bi nga xam ne moom war naa moom boppam di jël ay décision boppam te bu procureur joxe ndigal faaw da cay topp ci ni procédure bi tëddee kon tey yoon moomagul boppam ci Sénégal. yooyu xam nga dañoo am ay euh, loi hmm. yoo xam ne que colonisation bi te ñëpp xam nañ ne jamono yooyu ne loi doon wax lépp changé. xam nga tey jii Macron bés bu ne ñu saaga ko parce que mosu ngeen dégg procédure loolu dañ ko dindi ci seen code parce que mooy li ma la wax ku njabootoo da nga am ñu waya di da am ñu tëre di nga kon yow danga war a tal leneen yorum réew que di topp ne saaga nañ ma ak lii nañ ma wala naan nañ ma. Hmm. magistrat yi ñoom seen bopp ñoom ñoo reconnaître ne que indépend amuñu indépendance. waaw UMS yàgg nañu ko wax magistrat xam ne que nañ li xoolal fii nga bañ a xool fii. sa avancement dégg nga du am wala dañ lay jëlee fa nga nekk nekk président nekk juge war a mën a dogal ñu dindi la defi le procureur ne la da ngay xool fii léegi yow dañ lay jox ndigal mais loolu lépp de ne nit ñi comprendre aussi leneen moom moo di que fu ñu nekk procureur dafa war a xool fi nguur gi wax am na porox ndol de. Mm-hmm. moom moo di dañu nekk bu dee ci mbind la. daf fay xool wante bés bu yëkkatee kàddu dagg nañu buumu jaamam lu ko neex wax te procureur Ndoye bi nekk Ndar def na ko fi ci dossier baarataal dafa ñëw ba mu wax lu leer la moom moo di que ci sama liggéey ak lañ ma wax moom moo di que man de am na sañ-sañ boo xam ne que ci mbind mënu ma koo bañ a topp wante nag ca sañ-sañ boobu it man sama conscience man mayuma ma jóg di yëkkati samay kàddu di topp di xool sañ ne ma naa xoolee parce que xam naa ne man sama digganteeg sama borom que bu boobaa dina tooñ nga dinañ ma jéppi te yàlla dina ma jéppi li ma yoon may man sama xa sama conscience li ma may mooy lii ñëpp ngi koy fàttali réquisitoire historique du procureur Ndoye moom mooy procureur Saint-Louis tey anamu nit ñi dañuy jëm yàlla mu ngi avancé de. Hmm. xam nga ne wàccul de mu ngi avancé mu ngi jëm ca kaw. dafay hmm. ne mun na nekk ci procureur général. parce que yàlla dafa bëgg les gens véridiques les personnes véridiques dégg nga kon magistrat yi bu ñu taxawee ne ko ñun indépendant wu ñu ciy xeex ni ñu ko mun a xeexee. nañu fàttaliku ne aussi que la parole est libre su fekkee ne la parole est libre kooku c'est le procureur mais un juge dafa war a impartial un juge dafa war a indépendant dégg nga ñëpp d'accord nañ ne que procureur amul critère maanaam amul bindu mbind boo xam ne day impartial amul bindu mbind boo xam ne que dafay indépendant mhm. amul bindu mbind boo xam ne que dafa yor taxawaayu magistrat li ñuy wax magistrat moom moo di war sañ-sañu boppam ku amul sañ-sañu bopp nag jaam na ab jaam nag kooku warul mun a taxaw janoog buur ba pare ne buur fii ngay xool mm-hmm. kon yooyu yëpp dañ ko war a xool indépendance de la magistrature nee naa ne depuis le début dañuy pour la la politique dafa mës a nekk da au da au niveau de la justice ba boroom xam-xam yi dañ nekk bu fekkee nekk politique dugg na ci biir salle d'audience dëgg bi jaar ci palanteer mm-hmm. kon loolu itam mënees na kaa jàpp ci teewaayu exécutif bi wala sax seen kilifteef ci conseil supérieur de la magistrature am na yu leer yoo xam ne lu wóoru moom moo di que kooku complot la Khalifa Sall dégg nga ni bi duggee ci justice xam nañu ni politique complot la hmm. complot pouvoir exécutif complot pouvoir législatif complot pouvoir judiciaire Khalifa Sall a été victime de tout cela et complot des forces brutale de la police. ñu ñëw maître donc ñëpp a liggéey woon contre lui te mm. loolu dafa di loo xam ne que lu leer la. Mm. mais am na yoo xam ne gel la. gel la. Mm. et que da li ngay def yaa ngi lor. tey ban njëriñ la président de la République di jël ci lii nii li ñu jàppee asam te li ñu bind ci dossier yi bu ñu demee audience dinañ ko saagawaat de parce que dinañ ci toppaat. waadu dinañ ci toppaat. parce que foog ñu xool li mu wax yépp ñu hmm. firi ko ñu tekki ko. Hmm? ba pare méngale koog yoon est-ce que loolu rafet xëy na ñu ko déggul woon ñëpp sax dégg ko ndax man miy wax yow jotuma koo dégg. mais man dama ko bañoon déglu. daanaka du ma ko déglu waaw parce que dafa saaga dama <laughs> ne ko déglu. dëgg la. dem ne Assane ah wax dëgg yàlla de dégg naa man nga bëgg ma défendre la wante lii du ma la défendre. Hmm. dégg nga mu jéggalu ba mu jéggaloo sama yaram daw mu ne mu ne rus na ma. te fi mu ne wallaahi waat naa ko ci rasulaay kay ba tey yëkkatiwul bëtam xool ma ma xam ne kii li mu war c'est sincère te it avocat dafa di ko xam ne ku ne war na la mën a défendre ku ne am na droit mhm. am avocat mhm. kon man sama serment métier bi ma choisir mhm. te kii wan na ne que bëgg na ma taxawu ko war naa ko taxawu donte yàllaa tax même bu dee metti na ma ba pare mu teg ci ne maître boo bëggee man su fekkee ne tey tey tey bàyyi nañ ma jàpp ñu ma. Mm-hmm. man mun naa jëli kàddu ja jéggalu ci président de la république ay parce que wax ne ma ko. Mm-hmm. parce que xam na ne que tooñ na. Mm-hmm. dañu te dëgg. de nga ci laa jóg dem ba ma demee jóg euh, du ma dafa am yoo xam ne duma ko wax mais fa ñu waroon jaarale Assane moo gën a bon si nga xam ne fii lañ ko teg. ah oui dañoo dellu gannaaw de déedéet du ma ci wax du ma ko wax parce que ñu nit dafa xam ne que dañ ko war di denc. mais fañ ko bëggoon jàllale heureusement que jàllale wuñ ko. Hmm? foofu déedéet. ma ne kon ma ne Nations Unies sax dinañ ci am yoon. ah waaw ndax jalgati bu metti jaru ko xool par force foog ñu tëj ko. Hmm. alors que yow nee nga ko flagrant délit la. loo xam ne dafa fës. Hmm. di fës kay kenn du ko kenn kenn. kenn lu kenn du ko jeex. ma ne lu fës kenn du ko saytu. Mhm. kon nañu cohérent te lii day war a tax nit ñi dañu war a bu justice waxee dina ko gonga ñëpp topp ci ànd bi même bu juumee ñu ne hmm, ah waa wante da ñëppay juum mhm. xam nga loolu mën naa ne wante lii maa la te maa tey mooy lan mooy da nga nekk lii lu fës la ba pare nga dellu sa gannaaw ne dama koy saytu mhm. kon yow kenn warulaa gëpp est-ce que flagrant bi li la ñu moo justifié que ñu dem jàppi Assane au milieu dégg nga de la nuit dugg dem foofu encercler këram dugg ci këram fajar wala est-ce que nan la tuddee ci Assane la mu def dañ ko war gëstu saytu ko. instruction et d'instruction am na ci yoon nañu répondre boobu question. Hmm. ñëpp ñu déglu. bu fekkee ne nañ que la mu def amul laam-laam ne waroon nañ ko mën a àtte. Hmm. loolu la yoon wax. Hmm. kon fañ ko jaarale ñëpp war nañu jàpp ne que dégg nga bu asan tooñoo nit procureur yi nga koy tooñaat. Hmm. ñu ñëw nag ci biiru waaw ma sañoon di autorité yaa ngi ñuy dégg hmm. nañ ko dàkkal. nañ ko dàkkal. waaw ñu ñëw ci mbiru. Khalifa Sall du ma dem audience. waaw ñuy jaaraat ci kàddu yu ñaaw yi nga xam ne wax na ko. te xëy na ñenn ñi sax dégguñu ko waaw. mu ciy profité it dégg nga. ce n'est pas dans mes habitudes. Mhm. nit dafay honnête. Mhm. ñeneen ñi nga xam ne ñoom it mënoon nañu porter plainte te defuñu ko grandeur la. Mhm. du faiblesse. d'accord maître léegi ñu ñëw ci mbirum Khalifa Sall. nañ ko bàyyi. waaw les juges ñoom ñoo war a bàyyi politique. dëgg la te politique bi ñuy def it souvent kenn di leen ko sant. opportunisme la rek ak carriérisme. du leneen. d'accord. Euh, mënees nañoo jàll ci mbiru xalifa Sall euh, maître euh, bi nga xam ne xëy na moo lay taayeloon waxtaan bi dafa di mbiru Assane dafa ñëw dolleeku ci itam gën a bees nga jàpp ne la nga doon jooytu fële mi ngi fii waaye wuute na tuuti bu ñu xoolee ñaari affaires yi ndax ci biir président de la république dugalu ci loxoom porté wul plainte doonte moom la ñu tooñ waaye mbiru xalifa Sall ca ndortel ga ba ci cëppaandaw la yéen da ngeen doon wax ne nguur gi moom mooy xeex ak Khalifa Sall maanaam dale ko ci président ak euh, ña ca aju ñëpp euh, bokk ci ñoom euh, mbiru Khalifa Sall globalement maître ban jàngat nga ci def ci procédure yi gis nañu demande liberté provisoire yu bari yi ngeen dugaloon ba yegg sax ci ne da ngeen di cautionner li ñu koy toppee waaye loolu yëpp ñu lànkal leen ko ginnaaw àtte bi ak daanu juróomi at beeg alamaan beeg yëpp itam def ngeen ay recours yoo xam ni daanaka yëpp da ngeen ko ñàkk te du woon mbetteel ndax ñu bari gisoon nañ ne waaye du ngeen fa jëlee ndam loola yëpp loo ci jàngat ak lana la gën a marqué ci boobu procès. grâce bii ñuy wax ci xalifa Sall man question bi mosuma ko posé noonu ñëpp ñi nga xam ne que dañ leen daan ci wàllu politique. ngir mën leen xañ seeni droit wala pour mën a wañ seen loxo pour que ñu war a mën a bàyyi ñoom la nga xam ne que moom moo di seeni droit ñooñu ñëpp seen problème moom moo di que naka la ñu war a mën a jotaatee seen àq ak seen yelef ci biir réew mi ndax bu fekkee daan nañ la ci wàllu politique toujours dañ lay jaarale ci foo xam ne que justice dafay euh, lay teg ci situation boo xam ne dootoo mënati jóg di jongante pour jot réew mi wante it yoon dafa prévoir toujours yàqu-yàqu yoo xam ne que justice mun na ko indi ci nit ci dundu nit dégg nga pour réparer ko réparation boobu ci loolu la ñu war a wax fii ñu toll moom moo di que naka la ñuy réhabiliter Khalifa Babacar Sall dañ ko war a dafa war a am une réhabilitation judiciaire loolu moom mooy tax que mu mën a amaat l'ensemble de ses droits civils l'ensemble de ses droits politiques yi nga xam ne que moom lañ ko bëggoon privé te it loolu moom moo taxit participer wuloon ci élection yi dañ ko bëggoon écarter élection yi jeex na tooñ nañ ko grâce bi du dara lu dul un aveu aveu que tooñ naa la jaay naa la doole am naa doole it ak sañ-sañu baal la baal naa la man jàpp ma ab baal dama jàpp ne que innocent quand boo nekkee innocent mënuñu fexe ba ñu def la coupable culpabilité dafa di loo xam ne que nit ki la mu def kon Khalifa Ababacar Sall dégg nga grâce boobu waruñu ci satisfaire en tout cas man de bokkoon ci ay avocat am loolu doyuma te man mi nekkoon avocat bi xam naa ne que grâce bi doyul si loolu li ñu war a jublu ak li ñu war a def moom moo dikk dañ ko war a réhabilité te réhabilitation tribunal bi nga xam ne moom la ñu utiliser dégg nga pour politiquement ñu mën ko gàllankoor ñu mën ko jéng tribunal boobu ci boppam moom moo war a jël dogal boo xam ne que da koy da koy réhabilité maanaam delloo ko fa mu nekkoon balaa ñu koy tuumaal réhabilitation bu fekkee xam ngeen dañ koy séparé forom fàccee ngeen wax ko wante àddina bi dañu war a xam sénégalais yi dañu war a xam ne man de sama position benn la moom moo di dañ ko war a réhabilité bu jongante amaatee mu war a mën a bokk ci jongante bi te tant que réhabilité wuñ ko doo dootul munati ci wàllu politique dégg nga fu mu munti dem it dañuy naan que say droit pour nga def politique ba tey ji yoon daf la ko tere kon boog mbir mi na mot naxe yi doy na nañ ko réhabilité damay naan que avocat yi jàmbaar lañ xam ma li tax hmm. moom moo di que ñu tàyyi duñu sonn te avocat bu naan su ma demee damay ñàkk kooku la suñu robam même bu ko leeree ne day day day day ñàkk hmm. dinañ ko daane dinañ ko sëlëm na jàkkaarloo xeex loolu la ñu def aussi avocat Khalifa Sall yépp nag. Mm-hmm. man dem ba sës sax damaa feebaroon. Mm-hmm. gàcce ngaa laam. dossier Khalifa Sall ñëpp xamoon nañ ne que xanaa dama koy bant parce que waxoon naa ko ci digg émission bi moo di complot la police police moom complot bu ne ba àdduna sosoo ba tey fu police am bu complot amee police bokk ni fu jaay doole am police bokk ni te toujours ci booru nguur lay nekk fa nga xamee ne que Khalifa Sall ñëpp xam nañ ne que soxla na réew mi ñëpp xam ne que woo nañ ko ne ko kaay ñu bokk mu ne day jël yoonu boppam ñëpp ñu ngi doon xaar mu jàpp te noonu la demee ñu tàmbali ne ay avocat bi ñu ko jege jalgati bu njëkk CEDEAO naqarlu ko avocat yi ñëw ñun du ngeen ko jóg te dama ciy profité tuuti rek du digression gis ngeen li ñuy naan que nit ki buñ la jàppee dangay ngay naan ko bu la neexee ne du ma wax sànq sama avocat ñëw dinañ fexe yow ba bindal la ñu bëgg balaa ñuy woo sa avocat boo ñëwee ñu ne yow yaa soxla woon avocat wante fii xam nga lan la leen kii CEDEAO wax mais yéen a war a prouver ne créer une condition pour que Khalifa Sall gis ay avocat di ngeen wax nekk avocat yi ñoo war a prouver nekk dañ leen tere ñu gis Khalifa Sall yaa ngi dégg juge de léegi ñu jàpp ko muy complot police ak conspiration police ak aide police toujours procureur la république moom mi nga xam ne moom mooy diriger les activités nekk ca kaw di def ay conférence de presse jalgati jalgati boo xam ne addina yëpp dañoo yéene CEDEAO ne ko hey procureur la nga wax waroo ko wax du sa cër du sa wàll yoon mayu la ko violé nga présomption d'innocence su Khalifa Sall kon xam nga kooku moom mënatul bokk dans un procès équitable hmm. bu requérir it xam nga ne kooku moom déjà jàpp nañ ne moom jéng na ñëwul pour xool fan la dëgg nekk ñu jox juge d'instruction juge d'instruction chambre d'accusation bu cour suprême damay tënk fu ñu dem ni ñu xooluñu fan la droit bi féete ñu ñu xool rek naka la xalifa Sall di nekkee kaso yàlla dogal mu nekk député bu mu nekkee député kon complot judiciaire bi jusqu'au plus haut niveau fës na léegi nag exécutif bi feeñ na législatif bi feeñ na léegi kii judiciaire bi feeñ na législatif moo des à l'époque ñëpp dégg nañ mais que konk léegi xalifa député la dañ ko war a libérer donte après dañuy autoriser ñu jàpp ko ñu ne ko déedéet génne xam-xam bu bees mu ngi mel ni rek ci jamonoy Ablaye Wade le flagrant le flagrant délit continue ko xam na ñu koy fàttaliku fii ñu créé leneen mais que dès l'instant que jàpp dañ ko avant muy nekk député bu nekkee député loolu sama fu day def ci kaso bi te bu leen ñu sonal. kenn du ko saytu CEDEAO ne déet ba yeen ko jàppee boobu amuloon manto bi mu am hmm. kon réew mi moo taxaw solal ko manto da ngeen war a jàpp kër bi yoon bi ko yoon jox moom moo di manteau bi bu leen neexee na ngeen dem seen biir kon que yéen ñëpp réew moo réew mi da leen jox manto ngeen nekk manteau bi dañ koy wékk dañu attale ba pare ba xam ndax da koy solaat wala doo ko solaat assemblée nationale euh, du ma wax ni mu demee xëy na dina am benn avocat bu ci mos a bind. Hmm. condition yi nga xam ne dañu nekk noonu la ñu defee enquête bi di di noonu la ñu kii la ñu defee procédure bi ba war a mën a dem di bind procureur bi defee rapport ne levé nañu immunité bi dafa sax ruslu dafa ruslu hmm. ñoom it ñu dugg ci biir complot mu di kon suñu institution ñoo feebar. parce que nit ñi duñu xool loo xam ne que dafay jëriñu suñuy suñuy sët mais ñu ngi xool tey tey tey tey tey tey tey tey lii tax seen mburu ñu mën see def chocolat wala ñu mën see def beurre dégg hmm. kon boog fii le complot concernant Khalifa Sall complot bi ñëpp si bokk toutes les institutions de l'État étaient mêlées dans le complot contre Khalifa Sall pourquoi pour que bu bañ a nekk président pour que bu bañ a même nekk candidat ba ci conseil constitutionnel gis nañu décision bi mu rànd donc nos institutions dañ leen war a xoolaat te loolu xam nga lan la ñii ko yor rek ñoom ñoo ñu mën a dimbali ñoom ñoo ñu mën a dimbali il faut que ñu def de réformes ñëpp war nañ ci dikk comme le pouvoir législatif def des réformes yoo xam ne yenn ma tey yeeg jalgati yi bu ko police defee. ci saa si ci saa si ci saa si day am des organes de contrôle de la police yoo xam ne que ils sont supérieurs c'est un corps supérieur bu waroon def comme léegi des enquêtes sur les violences policières sur les méthodes ak la violation des règles de procédure ñu bàcc bàccal leen wala ñu tijj ñu summi seen manto bu ñu ko defee ñaar réew mi jaar yoon. Hmm. magistrat jalgati na xam nañ ne la mu def doole la te rafetul moom it dégg nga organes yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk te ñoom ñoo ko war a mën a yóbbu conseil de discipline ñu saisir autosaisir laaj ko de comptes def des rapport buñ ko defee ñaar ñett procureur bu ñëw danga jaar yoon doo xool lu lu neex buur mais da ngay def li la yoon sant juge def na ko gis nañu ñoom it ñu def la même chose jaarale ko yoon nii la état bi doxee dans les pays réew yi nga xam dafa am démocratie juge bi lu ko neex def juge buy def dara day xool est-ce que war naa ko def parce que bu juumee virgule leer na ko ne moom du fa yendu wala bu fa yendoo it leer na ko ne dinañ summi mantum wala dootul avancé mais si lu la neex def. loolu mooy dëggal baat bi euh, nul n'est au-dessus de la loi. mais la loi au de tout la loi est au de tout Mais si la loi est en dessous de tout, ah, est en dessous en tout cas du pouvoir exécutif mm. et du pouvoir de police. Parce que si mu ne man police pouvoir laa ko def de il y le pouvoir de la presse mais nañ ci yokk le pouvoir de la police. Mm. parce que la police sénégalaise war nañ ko xoolaat te dañu seet ne que yaa euh, nit ñi seen xel dañoo gaaw a fàtte police demoon na fi am ay doole ak ay dungu ba defa naroon dox jëm présidence kon tey jii doole bi ñu joxaat police di ko seetaan muy dajj ay këru nit ak di jël ay oto di jaar ci kaw ay nit ak buñ fekkee ne que bàyyi nañ ko lay raam ci ñag ba la jëm te ñag ba kat place de l' indépendance ak sa police yi nekk ak présidence soriwul de. Hmm. nañ def attention. Hmm. nañ leen discipliner nañ leen jaarale yoon. règle yi nga xam ne teg nañ ko. nañuy veiller nañu bàyyi di couvrir. les magouilles ay magouilles dafay am dégg nga rien que pour ay procédure dañ ci war a bàyyi xel juge yi nañuy annuler procédure yi nga xam ne que leer na ne que alkaati yi jaaraluñ ko yoon parce que ëllëg dañuy dem retraite seeni doom a ngi fi beneen juge koy jot la def ñu def ko jaarale fa seen doom wala seen jabar le juge di annuler procédure yi procureur yi nañu annuler les procédures bu ñu ñëwee ñu bañ pour poursuivre wane que ne les droits ont été violés commissaire de police yi ñu xool seeni agent balaa ñuy signé këyit les droits ont été violés ñu relever les manquements arrêter procédure yi lii mooy de jëmale réew ca kanam. Mhm. maître on est loin mhm. des états d'un état de droit on est loin d'un état démocratique les réformes profondes ñoo war a am dans ce pays. Mhm. à tous les niveaux. comportement yi dañoo war a changer. tey il aurait suffi que Macky Sall décidé na désormais alkaati bu fi def depuis ñu jaare la yoon def ko benn ñaar lépp jaar yoon wante bu xalaatee ne su ma ko defee bu ëllëgee kat dinañ ma mere ah déedéet noonu la buur di doxale mhm. dégg nga waaw su fekkee ne que tey jii neex na ko mu ne que assemblée nationale ay projet de loi yii def leen ko xool ñu jëmale réew mi kanam encadré lépp même tey jii mi ngi dem ñun police dégg nga ni ñuy dem nii police dégg nga c'est pas encadré da ngay ñëw ñu ne la mettre trente minutes yi nga wax wax nga ko sa njëlbeen dootoo gisatu sa client wala maître yow kat ab accepté nga waaw boo ñëwee da nga war a toog rek ñun ñu neex wax bu ñu neexee sax gëdd sa client wala bu ñu neexee sa wax ñu ne lii la wax yow tu te tais mais ko wéer fu ko wéer donc c'est pas encadré note bi ministre bi génne woon note boobu ngeen baal ma dama ministre bi baal. Mhm. mais c'est bidon ça n'a rien à voir avec l'esprit de la loi de l'article cinq du du du du règlement de l'UMOA parce que dañuy génne ay règlement interprétatif rien que pour encadrer nit ñi lañ la jox fee ñu bëgg ko jënd wala ñu bëgg ko teg mhm. alors que droit yi ñu ñëpp dañuy soxla les magistrats seen indépendance suba buñ ko violer avocat mooy taxaw wax Et on la pour défendre leur indépendance. On la pour crier seen impartialité jàppale leen ci ñu ngi koy wax jàggat ci ngaalaam am na ñu taxaw di ko wax te ñu ngi ci biir kon nañu prêter attention ci loolu te loolu bu fekkee am na ay magistrat ci bopp di ko wax réforme dafa war a am hmm. waruñu leen tànqamtiku dégg nga kon book politisation bi na dàkk loolu moom moo di moom moo di la garantie de tout le monde garanti ñun ñii ñu yilif ak garantie ñi ñu yilif parce que bu ëllëgee buñ fi tegee lu dëgër bu ñu leen di toppi te du ñàkk ñu ciy toppi ci lu leer lañ leen di toppi te lañu def lañ leen di topp. Mm-hmm. wante kenn du leen topp te la ñu deful comme na ñuy toppee Assane ci li mu deful. d'accord ak la ñu jàppee Khalifa Sall. Mm-hmm. te loo xam ne defu ko. Mm-hmm. rien que pour que mu bañ a réew mi. d'accord maître wax nga sànq ne jamonoy Senghor nga tàmbalee gis mbir mu ni mel jaar ci ab Diouf ba ci Ablaye Wade boo xoolee euh, régime yooyu ñu traversé yépp ndax politisation justice dafa yokk wala dellu na ginnaaw par rapport ak démb. xam nga <laughs> man dama nekk toujours da am détermination. te mhm. détermination lu koy indi c'est l'espoir. Mhm. dégg nga ñu metti woon na lool jamono Senghor ba ñu doon défendre ay Cheikh Anta Diop ay euh, nan la tuddati ay euh, Majmoud Diop ay euh, nan la tuddati plutôt ay Dansokho hmm. ñii ñëpp metti woon na lool parce que boobu tubaab bi loxoom ci réew mi hmm. dafa dafa dëgëroon hmm. wante toujours dañ doon dem ba nga xam ne que ñoom dañuy dellu gannaaw. d'accord da doon dellu gannaaw. Hmm. Abdou Diouf da doon dellu gannaaw. lay Wade it da doon dellu gannaaw saa dañ doon dem ba nga xam ne que. Hmm. da leen leer ne que kat wane nañu doolee wante léegi foog doole bi fës dañ doon laqatu. Hmm. toujours y avait l'apparence de l'indépendance de la justice. man sama bopp dama doon bind présidence. xam nga lan la ma président doon tontu. en raison de l'indépendance de la justice et de la séparation des pouvoirs mm -hmm. cher maître en raison de tel tel tel merci dina la tuddati mënuma int mënuma ci wax mhm. yooyu lañ ma doon bind mhm. wante ca suuf dama doon gis des applications concrètes mhm. dañ doon rétablir le droit wante fii maa tey la ci Macky Sall ah yaa ko tudd de. <laughs> ah boo nee Abdou moom la de Ablaye Wade ci nguuram waaw dañuy laaj. waaw ci nguuru Macky Sall. waaw ci nguuru Macky Sall waaw. voilà dégg ñoom ñëpp dañ doon am des limites yoo xam ne dañ doon reculer. Mm. pare trouver te limites yooyu yëpp da doon doon des tournants politiques. da doon doon des tournants politiques ou da doon am des réconciliations nationales. Mm. ou da doon am des mesures et des réformes. même bu dee ay coppité la da doon nekk ay coppité hmm. coppite ba tey moo gën. yow doo dellu gannaaw. doo avancé te doo bugg. taxaw benn place coppite sax xanaa da nga def euh, benn jéego. Hmm. donc toujours. moo ne fii ñu ngi doon wax ay réforme de metre jëm ci wàllu ñu mel ni Iba Der Thiam bu fekkee saytu nañu loolu xoolaat ko bu baax. Hmm. par rapport dégg nga articuler les événements politiques en rapport avec euh, nan la tuddati la justice. ñoom war nañu bind bind yu rafet yoo xam ne que ñu ngi nii ci jàng et en science politique aussi kooku du sama wàll man damay dama nekkoon rek un acteur di ci jox tuuti loo xam ne que fekkee naa ko di ci naqarlu it li nga xam ne que au lieu que ñu dellu gan ñu ñu avancé dañoo dellu gannaaw tey jii maa tey la te maa tey bii ah maa tey bi hmm. nguur Ablaye Wade demoon na ba doole police ak gendarmerie dégg nga demoon na ba yegg foo xam ne que ànd ak lënkaloog justice ci laa ne xool ne ah lii de yàlla bëggu ko hmm. man j'avais pressenti que nguuru Abdoulaye Wade mu ngi waaj a jeex hmm. ndax yenn yi justice bi ñu yeggee foofu am na fu muy toll waaw hmm. pressentiment la woon d'accord nga fii nii police di wéyale ñëpp teg ci bët di xoole réforme yi nga xam ne façade la ñu war koo mën a appliquer encadré ko ñu koy utiliser di ko mbubboo oh. na Macky am na solo maître ñu ngi lay gërëm bu baax euh, di la sant amoon mbégte waxtaan ak yow ci indépendance de la justice ni nga ñu tënkale itam nguur yi fi jot a jaar ak euh, yoon moom boppam ak di ci politique bi laxasoo leer na macha allah ñu ngi lay gërëm en tout cas bu baax a baax ci disponibilité bi ak ci waxtaan bi. Mhm. kon mu nekkoon euh, mbokk yi démb ak tey ak maître euh, Ciré Clédor Ly waxtaanee indépendance de la justice li lay taayal waxtaan wi doonoon euh, dossier xalifa Sall bi nga xam ne nekkoon na ci doon ci ñaawlu itam ni ci politique bi duggee ak dossier Assane Diouf bi bees barki démb ci àjjuma ji la ñu ko placé sous mandat de dépôt moom maître Ciré Clédor Ly mi koy layal wax ni itam détenu politique la moom Assane te itam wala politique rek moo lal ni procureur doxalee ak ni police doxalee xale lii moo doonoon démb ak tey bi ñu leen indiloon am mbégte lool saa su ne di ànd ak yéen ci waxtaan wi di gërëm jaawu jàllo mi fare woon ci wàllu machine bi gërëm leen gërëm gu amul àpp itam ci ànd beeg ñun dig daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaane leneen ak keneen Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu gi ñu yendoog jàmm